leen di soññ itam nag ngeen góorlu ci bu baax ci jaamu yàlla na ngeen di wéetal yàlla na ngeen doyloo yàlla na ngeen wéeru ci yàlla na ngeen jàpp seen Tuubaa mi amul lu may moom jullit kat jaamu yàlla lañ ko digal jullit dafa am ay sart am ay tënku tënku yoo xam ne dañ ko ko tënk aaya ko ko te warut a jéem ci dàll ca lañ ko aaya dara moo tax digal naa leen ngeen di julli digal naa leen ngeen di dimbalante ngir yàlla dimbaleen digal naa leen ab julit du fen ab julit du sàcc ab julit du naan sàngara ab julit du tox yàmba ab julit du bari po ab julit du wax du mooy yàlla ci diggante góor ak jigéen ab julit du du wax du jëw ab julit dafay nangoo liggéey ab julit day julli waxtu yu juróom day natt muurum koor day def asaka day aji màkka Eh, juróomi ponk yooyu daañu koy def te jullit nag li nga xam ne yàlla digal na ko ko obligation la ci moom kon nag maa ngi leen di fàttali ngeen góorgóorlu di jaamu yàlla de leen julli di ci jàkka ya de leen ànd akum jàpp te ngeen di teelee dem ca jàkka ya di fa teew jàkka yi nag amul jàkka yi murit amul jàkka yi xaadir amul jàkka yi tijaan jàkka yëpp jàkka yàlla la fu fi waay dëkk jàkka jafa new na fexe ba mu miin la te itam kat nit ki nga xam ne dafa juddu ñu raxas ko ba mu seet muur ko sér tudd ko yor ko mu màgg doog tuuti dund tuuti ndax dund tuuti mooy lu dund gi bari bari bu doon téeméer tuuti la ci yàlla ñu ñu raxas la ba nga set muur lam pax muur la ab sér dugal la ci biirum pax yow képp ak sa jëf na nga fexe waaye rikk waaye ba boo demee foofa bul fa defal lu lay te li lay def li lay sonal mooy bàyyi ndigal yàlla